waa exposition bi tout le temps comme nu ma koy waxee du début à la fin euh, du ma tàyyi di si revenir parce que euh, à cause de notre président euh, monsieur Médès Manick Diop le président du Médès di ko remercier bu baax a baax a baax di remercier technique bi nga xamante ni ñoom la ma booleeloon ku si mel ni ay ñoom aliment ak ñëpp ñi nga xamante ni ñu ngi koy assister di leen remercier bu baax a baax a baax expo bi nag boo ko gisee lu dara lu dul am ay projets yi nga xamante ni bëgg nañ koo atteindre quoi Euh, pour atteindre euh, projet yooyu noonu da see bokk tamit pour gën a mun a wanewaale sunu talent et aussi sans nous faire plaisir pour ñu liggéey ak nga xamante ni moom mooy sunu président di monsieur Manick Diop. loolu moo waral exposition bii nii mais exposition bi dafa am ay euh, conséquences yi nga xamante ni moom la àndal quoi conséquences yi boo ko déggee mooy dafa am ay ay but yi nga xamante ni ay but de continu ay ay continuation but continuation yi nga xamante ni ñi ngi am centre de formation. ñu ngi bëgg a wane suñu talent en tant que en même temps ñu ngi bëgg a continuer suñu liggéey ak la monsieur le président kon mun naa ne lii ça nous fait beaucoup de plaisir. oui parce que bëri na ay artistes yi nga xamante ni ñun ay royukaay lañ si ñun ñu ngi leen roy bu baax a baax a baax a baax tey jii buñ ko doon lim mun naa duñ fi jógee dañoo gis ne ñoom ñëpp kenn ku si nekk euh, taxawaloo sa projet du début à la fin te ànd président. kon ñun tamit bu ñu ñëwee bëgg jaar ci tànk yooyu bëgg ñëw pour dem pour euh, dépasser ñooñu ci ci côté liggéey techniquement kon lu ñu def dara lu dul topp seen ay tànk président nag lu ñu boole mun naa ne jarul ñu koy wax parce que àdduna yëpp xam nañ ko ndax wax nañ ko ci journaux yi gars yi teewee nañ ko wax nañ ko suñu ouverture expo bi waaw kon lu ñu def dara lu dul maanaam am plaisir tout le temps di ànd liggéey ak moom waaw thème exposition bi boo xoolee sànq maa ngi ko doon souligner c'est juste que dañoo am benn centre de formation centre de formation bi nga xamante ni dañuy recruter ay enfants de la rue dañuy recruter ñi nga xamante ni euh, dañuy dañoo nekk di chômer bëgga a wàññi chômage loolu moo tax ñu ne dañuy def expo bi pour lépp luñ ci am mun a taxawal suñu centre ndax bëri na ñi nga xamante ni ñu ngi siy intégré bu baax a baax a baax actuellement euh, suñu base mi ngi nekk Malika Plage centre bi nag nekk na centre boo xamante ni ñu ngi siy jariñ ay nit ñu bëree bëree bëri ndax ku am 15 ba 30 ans mun nga see ñëw nga liggéey am na ay peinture bâtiment am na ay tableau d'art am na sérigraphie confection tenue parce que ay côté animateur ak animatrice ñu ngi si commencé formé ay pas mal de personnes loolu moo tax ñu ne comme te ñu ngi dem ak suñu propre moyen war nañoo mën a def benn affaire boo xamante ni après bu ci génnee dañuy mën a atteindre lu bëree bëree bëree bëri loolu moo nekk thème expo bi. waa tableau yi tableau yi boo xoolee bëri na quoi parce que tableau bu nekk am na thème am quoi tableau bu nekk am na thème parce que lii nii yëpp lu ko waral mooy maanaam euh, liggéey. parce que mun naa ne du liggéey bu yomb mais ànd naa ci ay artistes yi nga xamante ni ñoom ñoo si doon jàpp ku si mel ni euh, moom mi ngi nii taxaw ak ñoom met aar nga xam ne ñoo doon nekk sama kër tout la journée euh, ñu nekk ci tableau yi di liggéey ñu siy jàpp bu baax a baax a baax a loolu moo waral tey tableau yi ñëw mais benn tableau bu ci nekk rek tey ji bu ñu ko doon décortiquer mun naa ne fi lañ ñuy fanaan quoi waaw mun naa ne fi la ñuy fanaan ndax ay message yu am solo moo nekk ci biir ndax boo demee bay def liggéey tamit defal boo xamante ni bu génnee ni na mun a jariñ askan bi képp ko teg sa kër boo ko xoolee affaire bi am lu lay revenir lu am solo sa biir xel waaw message bu may lancé mooy keroog wax naa ko ci conférence de presse bi ma ne nit ki su fekkante ne da nga koy da nga koy da kaa bëgg a jàppale bul ko may jën jàngal ko nu muy nappee moo gën moo lay gën a noppal n'est-ce pas euh, le président nag moom lu ñu def tout le temps di ko remercier ndax taxawaay bu mu am ci côté art bi mun naa ne moom la am taxawaay ci feneen ak feneen foo xam ne xamuñu ko mais nit ku nekk sa bopp nga xam ñun artistes yi ñu taxawee jox ñu bopp ñu jàppale si biir activité loolu laa bëggee ñëpp nañ ñëw gëstu ko parce que tey jii moom kese dëgg la mun naa demee ak amuram mais na góor jàpp ci góor la ko nit ñi di waxee góor jàpp ci góor boo ko déggee mooy président ñëw na jàppale ñi tey bu subaa ne keneen ñëw am jàppale ñeneen su ko defee ñooñu bu demee ba daje dañuy jàppalante seen biir kon na autorité yi ñëw euh, gëstu aar bi xool seen talent yi mun leen a jàppale ngir ëllëg aar bi nga xamante ni sa doom da kay bëgg a def ngay bañ ñu jéem a fexe aar bi nekk fii industrie quoi parce que actuellement nii nii nii dangay am sa doom mu bëgg a nekk artiste nga bañ te alors ko liggéey art liggéey noble la liggéey bi nga xamante nii boo ko nekkee respecté ko partout dans le monde nañ la jox cër macha allah. waa di ko di ko rafetlu bu baax di félicité waat euh, Pape Moussa euh, il a fait un excellent travail moom wax na ko léegi sa xale la xale banlieue la mais mu ngi góorgóorlu xam na ne ndam fu nekk la nekk. donc ñu dañu yàgg a jàppale artistes yi tey ay artistes confirmés euh, ñu mel ni ay euh, Kalidou Kassé ay Serge Correa ay Crémay dem si yàlla si ak ñeneen ak ñeneen ñu am fu ñu jaar ak ñoom ba ñu nekk ay artistes confirmés donc tey bu ñu gisee xale boo xam ne ne am na talent parce que talent kenn du ko jàngale université wala institut de formation da nga koy juddoo yàlla def ko si yow moom talent euh, amul doole. mais def ay créa yoo xam ne ne bu nekk wax na la ko léegi bu si doon nekk fii di ko tas euh, fi la ñuy fanaan donc kon ñu ngi koy féliciter encore Pape Moussa di la dolli ñu kël euh, di remercier ses staff même Ousmane ak ñu nga àndal di liggéey yëpp parce que exposition bi tey lay tëj mais avant exposition bi recevoir naa leen def nañu séance de travail def nañu ay liggéey yu bari ak sa ñeneen partenaire donc ça fait presque six mois ñu ngi siy liggéey lu ko lu tamit euh, taxawaayu équipe félicité aussi euh, suñu équipe euh, waa promo consulting waa MEDES e surtout aliment parce que moom laa la boyaloon parce que ñu ngi woon si yeneen événement ñun dañu bëree événement donc pour exposition bi moom moo doon interface bi donc di leen félicité ñoom ñëpp taxawul na la ñu ngi woon fii ouverture bi tey aussi ñëwaat pour cloture bi comme ni nga ko waxee rek ku nekk da si war a jàpp moom il est dans la dans la peinture am na ñeneen ñoo xam ne dans la musique euh, les autres sont sur euh, euh, la culture et cetera et mais ñun dañoo war a considérer suñu comme ay mécènes mécène mooy nga gis kiy def dara nga jàppale ko gis aussi un garçon qui montre une petite comme léegi ñuy def j'ai vu une petite chaîne de télévision de la banlieue du ñu am du ñu am moyen il faut que toujours mécènes yi di leen jàppale genre mentor ba ñoom ñu mën a Euh, taxaw ba ñoom tamit bu subaa ñu mën jàppale leen ñeneen ñi donc loolu moo waral suñu taxawaay ñun ñëpp ak sama taxawaay man tey ma di ko rafetlu ñoo naa fi ñëwaat fii pour encourager ko euh, jënd naa ay tableau pour ubbi ko maa ngi jëndaat encore ay yeneen tableau loolu yëpp ça rentre dans le cadre donc euh, di ko encourager tey sama collection personnelle ëpp na cinq cent tableau donc soxlatuma benn tableau ñaar mais su ma koy def c'est pour jàppale ko et à travers sa personne jàppale jeunes yëpp. et surtout les jeunes de la banlieue dafa am solo donc ñu ngi koy rafetlu nag yàlla dogal exposition bi jaar yoon ñu vulgariser ko ñu xamoon Pa Moussa xam nañ ko et puis yemul fii rek wax na ko il a des perspectives te loolu moo si am solo mu ngi bëgg taxawal benn centre de formation pour accueillir ay xale euh, talibé ay xale yoo xam ne ne amuñu fu ñu dëkk amuñu fu ñu nekk pour jàngal leen aar bi euh, mu ngi bëgg a def aussi am na ay projet pour dem def fi vernissage bu nii à l'étranger, euh, à Bruxelles ou à Montréal, etc. Donc, il a énormément de projet ñun si luñ ko mën jàppale rek suñu doole yem dañ ko accompagner jàppale ko l'essentiel mooy mu éclore nekk un champion parce que dëkk moom dañu soxla ay champion te euh, suñu dëkk bi dañu war a di di di encourager di soutenir ñëpp ñoo xam ñu ngi jël initiative kooku dafa am solo si dëkk booy xool toujours Sénégal bu ñuy wax dañuy jël exemple dañ naan Maroc wala ñuy wax Afrique du Sud wala ñuy wax île Maurice wala ñuy wax fii ak fa loolu yëpp c'est parce que ñooñu dañu émerger mais dañu jàppalante ba tey ñu taxaw donc ñun dañu war a changer li ñuy wax ci tubaab paradigme dañu war a changer mentalité ba nga xam ne ne générosité ba dañ ko war a intégrer ci suñu ay défin ak suñu ay euh, euh, activité ba nga xam ne boo gisee kenn di def dara li muy def mu rafet mu set mu am engagement jëm ko xëcc jàppale ko mu dem parce que moom bu demee dina jàppale ñeneen ñu nekk si ginnaaw.